arafa doj la boo xam ne bokk na ci jaaruwaay ci aj bi féete penku màkka yemook digganteem ak taayif ñaar fukk ak ñaari kilomètre cosaanam di lu yaatu lool arafa buñ ko waxee sax il faut ñuy seet lan mooy définition bi arafa ñenn ñi dañu ne bi nga xamee sayduna ibrahima mi ngi jàngal sayduna ismaila naka la ñu war a defee aj ndax moom moo moom lañ njëkk yàlla njëkk a sant ngir mu ngir mu woote aj gi waa sin fi naas bil hajji na nga digal ji ñu aj ba mu koy jàngal nag naa ko fii lii ngay def fii ngay arafta ndax xam nga arafta ndax xam nga ñu ne foofu la arafa jóge ñu ne déedéet ñeneen ñi non bi nga xam ne yàlla euh, wàcc na yonent yàlla aadama sunu maam aadama ak xawa ba ñu laalee ci garab ga ci àjjana ba leen wàccee kii mu wàcc ko booru Inde kii mu ñu ne ñu ne ñu ne kii jidda wala boog ak barab yu ñu ci mën a wuutee en tout cas seen ñaaru daje ñoom ñaar araf xaman gi mi ngi ci arafat ndax arafat loolu lay ci arab arafa mooy xam na dégg nga ñoom ñaar foofu lañ xamante ñu ne loolu moo waral ñu ne Arafat ñu ne déedéet nit ñi nga xam ne ñi jóge Indonésie ñii Sénégal ñii assi ñii ñii ñii Europe ñii fu ne mais ñu daje fa xamante boobu taaruf boobu mu ñu ne kon ci la baatu moo arafa jóge taxawaay bi bokk na ci ponki aj bi bari lool ngëneel ba tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yaatal ko ci jullit yépp digal leen ñu dundal ko rawatina ci koor lool yi waral ba muy makkaan di zamaan mu nekk euh, benn ponk boo xam ne mooy taxaw fa taxaw gañ fay taxaw ponk la ci ci ponk fondation aj yi ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alhajju arafa ak ci bopp buñ koy waaye mooy arafa mooy tax moo tax waaye nag suñu borom tabaaraka wa taala ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu bëgg jullit yi nga xam ne nekkuñu màkka bokk ak waa màkka mbir mi dégg nga tax mu ci soññee ci ñu ci def ay yu baax yu bari ñoom it ñu koy yëg fa waaye mën a nekk woor dégg nga woor gi dafa baax lool ndax yonent bi sallallahu alayhi nee na boo wooree bisu arafa koor gi dana faj dana la jéggal danañ ci dëgg ba yàlla far say bàkkaar ci mi jàll farki sa bakka ci at mii di ñëw waaye nag koor googu ku aj du ko def ku aj sib nañ ci moom muy woor ràññiku na ci bés bi waxtaan bi fa yonente bi def waxtaan boos kii di imam Ahmadou Touré jàpp na ni lépp lu jaroon a wax ba saa di taxaw dikk na ci soññee boobule soxal rawatina tey suñuy jamono. dafa am benn yahud boo xam ne eh, dana dana Seydina Omar yéen am na ay yoo xam ne gis naa ko ci alxuraan benn suuf ñun suñ ko xamoon dañ ko jël muy suñu fet mu ne ko ban la mu ne al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum lislaama diinan tey jii te bu su arafa la woon mu ne tey jii de matalal naa diini ji tey la diine mat muy xéewali al jëf jël naa lislaam gërëm loo ko muy seen diini mu ne bis yoon aussi dama nag xam naa bis ba xam fan la message boobu yonent bi jël nag foofu message la boo xam ne keroog lu mat a wax ba ba addunay tukki yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ko ñu jàpp ci lañ ci jàpp xëy na ah lañ ci fàtte fàtte lañ ci fàtte la ci ñëw ci ñun ñëw ci ñun waaye lu mot a wax keroog yonent bi wax na ko lépp loo xam ne rek daal ab jullit war na koo mel muy message wala ngay njiit dégg nga di kilifa wala ñu yilif la kilifa nu mu war a mel ka yilif nu mu war a mel lépp lu mot a wax keroog wax na ko ci ci ci ci message boobu